bay weji ñëw na boroom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw la bay weji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal ay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndeena ndeena ñëw na ndini doomi géwël la manaan kër wejji dem fa seetaan ko na lu ne ku fa dem di seetaan xoolal ñu seetaan te déglu lu leet ba waaw waaw tey ma way bay wejjeey waawaaw bay wejji nee na vélo bi rek a ko ñor waaye ndeene doomi géwal la deretu géwal moo ko yëngal yow wax ma lii la yëngal ndeene géwal moo ko yëngal kër wejji ku fa dem dinga ree ba fange per wejji yaa bari feeling dëkk bi dëgër non dëkk bi dëgg man la problème mooy gars yi koo ci woo. seq moom ay bagage koo ci woo bala ngaa wax sa soxla sa numéro sax boo ko gisee bala ngaa wax sa soxla mu jàmbat la dëkk bu nekk. loolu mooy problème bi quoi. dëkk bi dëkk bi waaye man daal li bu baax a ngi noonu. Eh, xamoo ñu dara waaye nag Samba Ndour Chérie Sophia. Eh, ndaanaan na goog baax sama naa xaalis. ndaanaan na goog cee tee bii nii xoolal kenn kenn kenn talul kenn ku nekk sa bopp nga tal. mais booy xoolal li ma la fàttee tegal. fils bi ñu romboon keroog booy bu xees boobu xamee nga ko. xamee naa ko mooy booy bu xees boobu noonu n'est-ce pas. mooy ki ma doon woo keroog muy bandi bandi lu fii nii génne. waaye booy bi maa daje moom yóbbu ko sama gàlle. loo wax nii. sama gàlle laa ko yóbbu. non booy yow kal. ak a baax sama waaj wuyu ma déggoo li xale yi wax lu xale yi wax déggoo ko lan la xale yi wax teel ma. kan soo nga booy. dama sama téléphone dafa desaati bu mais kon dama koy filmer maa ko yóbbu sama néeg fis. faral fils xoola li nga wax si booy boobu noonu la laa lay dëggal si beneen booy bi. leex ni beneen booy noiro bi. leex ni xoola sama gàlle laa ko yóbbu lu ma neex laa ko def booy. yee sa waay nag yow. dafal ndànk de. instant nii da nga nice parce que mooy loolu noonu. dañuy bëgg a ñëw toog sama maay dama laa xam da nga bëgg femme de booy. yow booy surtout taw gi nii da nga ko bëgg yow booy dama la xamee de. mooy loolu quoi booy eh, moom il faut nga dox seen maay. Ah, eh, eh, lu ma leen waxoon fii waxoon naa ne moom leen fekk dama ne yow nga dem ak sa kanam gu gi ah, yow sa kanam gi niroo ko feebar xamul lu ma bëgg ngeen xam ko jëreen toog seen i kara ah. mais boo fekkee ay dara la man boo ñu ma eh ndeene ndeene ndeene waaye ndeene yow waaye ndeene ndeene ndeene waay waay nee na indi sama vélo bàyyi bàyyi sama vélo bàyyi bàyyi yow lu ma dugg doo ca dugg bilaay yaay jàmm yow jàmm nga rek jàmm pon nga lépp lu ma dugg rek nga daw ba wax waaye du ma la wax dara bu fekkee tey ñaareel xale rek bu ci dugg yow sama kër sax da nga koy génn waaye moom pono yi ci boppam moo leen la bee ma daane. bi welo naa la nga bàyyi xale yi ngay nekk xale yi moom boo génnee ci benn dan lay defaral. welo kër mën nga fee tàng mais moom boo génnee dan lay defaral. welo bi la. damaa laal si rek kanam gi mu juutal ma. doo gëmee baax na doo gëmut baax na. Hmm. waaw li nga yow xati rek yow. loo wax nga weddi ko rek. baax na nekk bi ñu ko bàyyi waaw nekk bi ñu ko nekk waaye xale yi moom. loo wax baax loo wax rek baax bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw laa bay wejji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw laa